jërë ngeen jëf mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax ñu ñëw euh, ci xibaaru tàggat yaram yi fas yéene waxtaan ak Sadio Mané ak jafe-jafe yi nga xamante ne euh, costume bi wax na ko euh, ci état physique mais andi ay leeral lu tax joué match bi passé ci Ligue des champions Asie bi wax jafe-jafe yi Pape alsan Gueye di dund fële ca Marseille donc dinañ ci wax suñu xalaat ak suñu gis-gis mais laata ñu ci ñëw dañuy wax ngeen wéy di abonné te di activer cloche bi ndax vidéo bu ñu ngeen eh, gis Marseille donc mën nañu wax commencé donc def yëf yu doy ci Pape donc eh, à la limite doo xam sabotage la pour carrière eh, Pape Gueye mais en tout cas lu c'est inadmissible kenn mënu ko nangu jour boo xamante ne mën wax day soog a démarrer carrière am et dafa def ay sacrifices yu bari ngir ñëw Marseille donc loolu rek waroon nañ mais écarter seen groupe bi football ndax prolonger le contrat noonu loolu moom pour man euh, baaxul quoi et man euh, am naa confiance ci Pape Gueye même si que écarté na ci groupe bi am na mentalité boo xamante ne mën na ñëwaat euh, ci nu mu gën a gaawee et mën na ñëwaat ci meilleure forme am parce que gis nañ ne moonte wax bon nañu ko ci kaan bi mais en tout cas waa Marseille li ñu def franchement d'accord ma ci mi ngi noonu Pape ki nga xam mooy Sadio Mané entraîneur bi nee na donc. Euh, dafa amone ay jafe-jafe ci euh, état physique am dafa gis que ne euh, dafa bëgg mu retourner forme physique motax match bi passé andi woonu ko ngir mo football donc ta gis na que né Sadio Mané li mu entraîné dafa bari trop motax mu né mu reposer ko pour mu ñëwaat ci meilleure forme lolu mom mo gën lolu tax mu defoon lolu ki nga xamantene ñi nga xamantene wa Paris Saint-Germain ñom mom depuis bi Mbappé annoncé né départ am ñoom ñi planifier planifié et yàgg nañ ko planifié sax né bu Mbappé génne Real Paris donc dina am joueur yu ñu pour mu remplacer ko Rafael Léao la ñu gis donc pare nañ ngir fay ci Raphaël Leao 175 millions d'euros fay ci euh, Victor Osimhen lu 130 millions euh, d'euros donc lolu la wa Paris Saint-Germain en tout cas wa Paris jamono yi donc bu Mbappé demee teg nañ euh, trois jours de classe mondiale yoo xam war nañ ko jënd d'après Fabrizio Romano euh, euh, Xabi Alonso bi nga xamante ne jamono yi ñi ko bëgg pour mu coacher seen équipe yi bari na ku ci mel ne Bayern ku ci mel ne Barça mais surtout Liverpool mais état actuel bi nga xamante ne situation bi nga xamante ne Xabi Alonso nekk na moom jàpp na que ne mu rejoindre Liverpool moom moo gën que muy dem fële ca mi Munich wala par sa José Mourinho la spéciale one moment euh, africain, jour jour d'ailleurs loyal de goût, de am donc l'on

ki nga xamantene moy crampé jata donc 4 mars 2 yo xamantene du ko football et Mongo ngo 10000 dollars timit allemand nañ ko gannaaw bi mu waxé ay propos yo xamantene euh, yu yu deugal la jëmele ko ci wa kaf ki di euh, joe obi michael mom ancien joueur chelsea bi néna real bu doon day jouer fele ci prime league néna 3e euh, wala 4e lay jël barça mom kenn waxatu ko néna day day wàcc né championship lay dem donc loolu nag joe Obi Michael moom moo ko wax en ces jours bu ci si ñëw leen ngeen wax seen xalaat ak seen gis-gis euh, suñu gaynde yi suñu gaynde yi bêcheurs yi donc ñu les lions yi nga xamante ne ci plage lañu football tey jii lañu war a commencé c'est le première match de poule qui coupe du monde ba soccer donc Sénégal euh, donc bu 15 euh, 30 jotee Inch'Allah, j'aime donc nek la suñu espérons que euh, premier sacre continental international comme nous sacre continental donc